muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. gaaw fii ci Tawfekh Production ngir vidéo bu ñu dugal rek nga mën see jot si sens. bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Touba. bismillaahi ma jug ngir teeru bis bi ma saaf bis ba yaayoo way ba mooy màggalu ba Touba. bismil ilaahi ma jug ngir teeru bis bi ma saf bis ba yayoo ba géex mooy màggalu go Tuuba bismil ilaahi na ngeen jugu teeru bis bi nu saf bis ba yayoo ba géex mooy màggalu go Tuuba mooy bis bi tax tey nga yor te la yar sa sikin dinaan sawar nga di dingat góor ya jëm Tuuba lu jiitu bis bi ku daa bañ noon li xëy na ko rey ku feex ci diineem na fonkaat màggalu ko Tuuba ki tax ga tax soo amee jom war koy taxanal ki tax ñu taxa bisam mooy màggalu ko Tuuba dix-huit ci weeru safar mooy bis ba ahmaduna génnoon dajeeg noon ya bañ ñi ñi xam tuuba ngir yàlla ak sunu ndimbal rek moo taxoon mu la fas dadd njaboot geeg ña jaayante fi tuuba ay ati at la fa def at mu ne ñuy gën a ful na toom ya ngir bañ mu dellu seen ndam ci biir tuuba moom rek a dem dellu si maslaawul te ni tey way di wax lam daa wax bam jugul tuuba ilaahuna yaa nasaara jalla an masalin tuubu lahu watraku taslis te dem tuuba moo bari ndam te damoowul lenn yàlla la gis déglul ma wax bam ñëwee lum sant waa tuuba ndigal la mooy daf ni woon sa mbég te kum di sa mbég bu bis bi dellu see te bis bay màggalu ko Tuuba nang ma ci santalewaat buur yàlla kon ma am si tukki beeg bokk koog yow cey borom Tuuba ku am ginaar wala xar baa ba jàpp gi lépp bum naw te bum xeem na dundal màggalu ko Tuuba billaahi moo di janafin bila dororin moom rek a sonnoon ba am añ jox ko waa Tuubaa mboolem teraanga yi ak xeewal yi moonu ko may sant le sant ko war kon ila Tuubaa ku leblewul war fay kuy gor bisub faya ngi nañ wëkk te màggal màggalu bu ku leblewul war fay kuy gor bisub faya nañ wax gaali te màggal Tuuba nun jekk nañ jekku nañ màggal ko rekk a ci des nañ def ba def lu nu mënul ngir Tuuba safar la di raweeg maasam ku yeewu te xam ciw gàmm lay door waajal màggalu Tuuba la in zakartum 18 ci weeru safar waajal nga ñëw Tuuba kon danga gis la azidannakum jabu weer añub safar dafee teew li war na waa Tuuba di bir na ñaar fukki fan at mu ne ngay gën a mën doo pett doo daanu yem naa màggalu ko Tuuba moo jara miiraasu moo jara dox ga booba bawal xawma ci dunyaa jar màggal si woo Tuuba bis la bu ñuy sant tey ziyaare Ahmaduna jullit ñi bennoo di dundal diine biir Tuuba bokk ya jokkoo di wallare ñëw dajawaat koom bi yëpp di dox cey màggalu ko Tuuba murit ya jël seeni kër jox gan ya kenn du xatal bernde ya gandoo ne yem màggalu ko Tuuba loo gis ci berne ba ko yem far leneen ni jarañ raw du rayaaxin di benneel ruux ya ñëw Tuuba kanfuur yëpp daje ñuy jàng ay limilim ci alxuraanul karim ngir màggalu ko Tuuba ahlul xasiida yi ñoom ñëpp daje di durus ñi yëkkati taaj gi neexal màggalu ko Tuuba bay foo yara seeni si karu jol ca kaw ñi daanu leer aka wax jërëjëf borom Tuuba mbégum sëriñ baa ngi mooy sunu mbégte nan ci taxaw teeru ko mbég gu njëkkoon mbég ngir borom Tuuba te yéen ñi yar saa yi rus Tuuba leen ngeen rus sëriñ bi te def ay jéego ci biir Touba nawet bi moo tax ba kenn màggal si wut lu gën gas leen kanaal yi te yoon yi biir Touba nawet bi moo tax ba kenn màggal si wut lu gën gas leen kanaal yi te yoon yi biir Touba ndongali Moussa Touré doon bég di teeru bégam yal nay mbégum képp kuy waaj màggalu ko Tuuba buur yàlla dollil sa xéewal Mustafa ki ñoñam li feey ak màggal gi di doon mbégtem Sëriñ Tuuba buur yàlla dollil sa xéewal Mustafa ki ñoñam li feey ak màggal gi di doon mbégtem Sëriñ Tuuba buur yàlla dollil sa xéewal Mustafa ki ñoñam li feey ak màggal gi di doon mbégtem Serigne Touba teeru bis bi ma saf bis ba yayoo way ba mooy màggalu go Touba bismil ilaahi ma jug ngir teeru bis bi ma saf bis ba yayoo way ba mooy màggalu go Touba bismil ilaahi na ngeen jugu teeru bis bi nu saf bis ba yayoo way géex mooy màggalu ko Tuuba mooy bis bi tax tey nga tal yorte la yar sa sikkin dinaan sawar nga di diingat góor ya jëm Tuuba lu jiitu bis bi ku daa bañ noon di xëy na ko rey ku feex ci diineem na fonkaat màggalu ko Tuuba ki tax ga soo amee jom war nga koy taxanal ki tax ñu taxa bisam mooy màggalo go Tuuba 18 ci weeru safar mooy bis ba Ahmaduna génnoon dajeeg noon ya daa bañ nit xam Tuuba ngir yàlla ak sunu ndimbal rek moo taxoon mu la fas dat njaboot geeg ña daa jaayante fii Tuuba ay ati at la fa def at mu ne ñuy gën a ful nattoom ya ngir bañ mu dellu seen ndam ci biir Tuuba moom rek a dem dellu si maslaawul te ni tey way di wax lam daa wax bam jugul Tuuba ilaahuna yaa nasaara jalla an masalin tuubu lahu watraku taslis ta dem Tuuba dam te damoo wul lenn yàlla la gis déglul ma wax bam ñëwee lum sant waa Tuuba ndigal la mooy daf ni woon sa mbég te kum di sa mbég bu bis bi dellu te bis bay màggalu ko Tuuba nang ma ci santalewaat buur yàlla kon ma am si tukki beeg bokk koog cey borom Tuuba ku am ginaar wala xar baa nag ma jàpp gi bum naw bum xeem na dundal màggalu gu Tuuba billaahi kii moo di saa nafin bila dororin moom rekk sonnoon ba am an jox ko waa Tuuba mboolem teraanga yi ak xeewal yi moonu ko may sant ko sant ko war kon ilaa Tuuba ku leblewul wara fay kuy gor bisub fayangi nañ wëq gaay yi te màggal màggalu gu Tuuba ku lebu lewul wara fay kuy gor bi sub faya ngi nañ wëq gaal yi te màggal màggalu gu Tuuba nun jekk nan jekku nan màggal ko rekk a ci des nañ def ba def lu nu manul ngir màggalu gu Tuuba safar nit di raweeg maasam ku yeewu te xam ciw gàmm lay door waajal màggalu ko la in zakartum ku koy tafsir te bëgg mu wér 18 ci weeru safar waajal nga ñëw Tuuba kon danga gis la azidannakum jab wér añub safar dafee teew li na waa Tuuba di bir na ñaar fukki fan at mu ne ngay gën mën doo perte doo daanu yem naa màggalu ko Tuuba miiraasu moo dox gaboo ba bawal xawma ci dunyaa lu jar si woo Tuuba bis bu ñuy sant tey ziyaare Ahmaduna jullit ñi bennoo dundal diine biir Tuuba bokku ya jokkoo ña di wallare ñaw dajawaat koom-koom bi yëpp di dox cey màggalu gu Tuuba murit ya jël seeni kër jox gan ya kenn du xatal bernde ya gandoo ne yem màggalu gu Tuuba loo gis ci berne ba ko yem far leneen ni jarañ raw du rayaaxin di benneel ruux ya ñëw Tuuba kanfuur yëpp daje ñuy jàng ay limilim ci alxuraanul karim ngir màggalu ko Tuuba ahlul xasiida yi ñoom ñëpp ay daje di durus ñi yëkkati di neexal màggalu ko Tuuba bay foo yara kaaju seeni si kar jolli ca kaw ñi daanu leer aka wax jërëjëf borom Tuuba mbégum sëriñ baa ngi mooy sunu mbégte nan ci taxaw teeru ko mbég gu njëkkoon mbég ngir borom Tuuba te yéen ñi yar saa yi rus Tuuba ma fàttali leen ngeen rus sëriñ te def ay jéego ci biir Tuuba nawet bi moo tax ba kenn màggal si wut lu gën gas leen kanaal yi te leeral yoon yi biir Tuuba nawet bi moo tax ba kenn màggal si wut lu gën gas leen kanaal yi te Tuuba ndongali Musaa Ture doon bég di teeru bégam yàlla nay bégum képp ku i waaj màggalu Tuuba buur yàlla dollil sa xeewal Mustafa ki ñoñam li feey ak màggal di doon mbégtem Sëriñ Tuuba buur yàlla dollil sa xeewal Mustafa ki ñoñam li feey bur yàlla dollil sa xéewal Moustapha ki ñoñam li feeyeek màggal gi di doon mbégtem Serigne Touba bismil ilaahi ma jug ngir teeru bis bi ma saf bis ba yayoo way ba geex mooy màggalu ko Touba bismil ilaahi ma jug ngir teeru bis bi ma saf bis ba yayoo way ba geex mooy màggalu ko Touba bismil ilaahi na jugu teeru bis nu saf bis yayoo way géex mooy màggalu ko Tuuba mooy bis bi nga tal yor tee la yar sa dinaan sawar nga di diingat góor ya jëm Tuuba lu jiitu bis ku daa bañ noon di xëy na ko rey ku feex ci diineem na fonkaat màggalu ko Tuuba ki tax ga tax soo amee jom war nga koy taxanal ki tax ñu taxa bisam mooy màggalu ko Tuuba 18 ci weeru safar mooy bis ba Ahmaduna génnoon dajeek noon ya daa bañ nit ñi xam Tuuba ngir yàlla ak sunu ndimbal rekk moo taxoon mu la fas dëdd njaboot geeg ña daa jaayante fi Tuuba ay ati at la fa def at mu ne ñuy gën ful na toom ya ngir bañ mu dellu seen ndam ci biir Tuuba moom rek a dem dellu si maslaawul tasaalitu ni tey way di wax lam daa wax bam jugul Tuuba lahu watraku taslis ta dem Tuuba moo bari ndam te damoo wul lenn yàlla la gis déglul ma wax bam ñëwee lum sant waa Tuuba ndigal la mooy daf ni woon sa mbég te kum di sa mbég bu bis bi dellu see te bis bay màggalu ko Tuuba nang ma ci santale waat buur yàlla kon lu ma am si tukki beeg bokk koog yow cey borom tuuba ku am ginaar wala xar baa ba jàpp gi lépp bum naw bum xeem na dundal màggalu gu tuuba billaahi kii moo di saa nafin bila dororin moom rek a sonnoon ba am an jox ko waa tuuba mboolem teraanga yi ak xeewal yi moonu ko may sant le ko ak sant ko war kon ila Tuuba ku leblewul wara fay kuy gor bisub faya ngi nañ wëq gaay te màggal màggalu gu Tuuba ku leblewul wara fay kuy gor bisub faya ngi nañ wëq gaal te màggal màggalu gu Tuuba nun jekk nan jekku nan màggal ko rekk a ci des nañ def ba def lu nu ngir màggalu gu Tuuba safar la nit di raweeg maasam ku yeewu te xam ciw gàmm lay door waajal màggalu ko la in zakartum ku koy tafsir te bëgg mu wér 18 ci weeru safar waajal nga ñëw Tuuba kon danga gis la azidannakum jabu weer añub safar dafee teew li wër na waa Tuuba di ber na ñaar fukki fan at mu ne ngay gën a mën doo pett doo daanu yem naa màggalu ko Tuuba mu Tawfekh ju kenn xamul fu yem abonneel gaaw fii ci Tawfekh Production ngir vidéo bu ñu dugal rek nga mën see jot si saa si kon dafa mel ne Tawfekh Sëriñ Tuuba rek am solo